lycée mbakke Mbacké diwaanu Touba Mbacké gépp ñi ngi koy méttilu ah, di ko naqalu di ñaanal way dem jàmm yi Moustapha ñaar yàlla suñu borom bi xare ko ajjana taax ñu si barkeem di ko jaale mbokk yi adduna bépp di ko jaale waa di ko jaale mbokk yi sës si moom rek mbokk yi ginnaaw loolu dañ ciy indi ab jàngat mu doon loo xamante ni doy na waar lool bëri na loo xamante ni ñu koy bëgg nekk mel lu jëf ju ñaaw ji si diwaanu Touba Mbacké mbokk ngal la waay sëñ sëriñ bi moo moom ab dëkkam digle teg ay sartam ni lii la bëgg ci ab dëkkam kon ngelawaay nan doxee loola nga xamante ni moom la sëñ bi bëgg ci ab dëkkam ngelawaay Baay Faal yi dëgg la ñi ngi def seen liggéey ñi ngi def lépp luñ man waaye tey ordre lañ leen jox ordre jox ki ko jox mooy kan mooy sëriñ Muntaxa Mbàkke mbokk yi buñ jógee kenn ku ne naan Baay Faal yi Baay di yàq der Baay Faal yi noonu mbokk yi Baay Faal li ñu ko xamee mooy liggéey euh, liggéey joxe wala liggéey Euh, liggéeyal Serigne Touba loolu lan lañ xamee Baye Fall ba tey loolu si lañ nekk kon ngan la waaye Serigne Mountakha Mbacké moom moo ëpp dëkkam li nga xam ne Cheikh Abdou Lahad loolu la bokkoon si dëkk bi daan ko liggéeyal ba tey mu jóge fi ñuy dox dox ba ay góor a ñëw Serigne Mountakha Mbacké mu ne lii la bëgg si dëkk maamam bii kon ngan la waaye nañ ko jàppale si loolu dëgg la Baye Fall ñi ngi def seen liggéey waaye bu ñu jógee naan Baye Fall defuñu seen liggéey neen liggéey du noonu ngal la waaye loolu saltel deru Baye Fall la ak yàq deru Baye Fall ak ñi nga xamante bëgguñu dëkk bi avancé jëm sa kanam ñun na xool bi mit la ñu waxee ak naqarlu ndax jëf ji dafa doy waar lool ndax tey bu ñu demee ba naan Baye Fall ak pël yi ñoo am problème gis nañ vidéo yi gis nañ révélation yi kon ngal la waay na lu ndaw mu waruñoo mën a boole si lii kii day def liggéeyam kii nga xamante ni yow nekkoo si la xamante ni sëñ bi bëgg ko si ab dëkkam waaye Baay Faal bi bu ñëwee ni la ah lii kat sëñ bi bëgg ko si ab dëkkam dëkk ah, si dëkkam waxtaan ak yow si loolu kon ngelawaay fekk si ko si njëkk tiraanga jooju muy waxtaan yow mais bu Baay Faal ñëwee tey di wax ak yow si njekk ak tiraanga yow nga tëb tëb bëgg jug dal si kawam non du du yomb kon la ngelawaay nanu respecté waat Baay Faal yi comme ni ñu respecté policiers yi wala gendarmes yi tey policiers yi ak gendarmes ordre lañ yor di liggéey ku leen gis rek respecté leen naw leen kon dëkk bi Serigne Mountakha Mbacké moo ko moom kon ngallaawaay lépp lu mu fi bëgg nan ko defal lépp lu muy tere nan ko fi bàyyil buñ ko mënoon ngallaawaay nan génn dëkk bi dem bàyyi ko fi akub dëkkam moo gën ñu nekk ci dëkk bi di salteel dirub Baye Fall yi wala di salteel dirub Touba wala di di ñi buñ waxee dara ñu naan Serigne Mountakha Serigne Mountakha non noonoo kon ngallaawaay mbokk yi dafa am loo xamante ni dafa jaaduwut dafa am loo xamante ni il faut suñu taxaw seetluwaat ko ndax dëkk bi Sëriñ Tuubaa ba mu koy sot ba mu koy si jaamu yàlla ak liggéeyal ko moo tax ma sos ko dëkkub jaamu yàlla ko tudd woon képp koo xam laa nopp ñëw jaamu yàlla na ñëw pour jaamu yàlla mais képp comme. mos xam di produit buy may kàttan waaye di yokk awra ñi ràññee ko lool ci réew mi ak bitim réew ndax efficacité amul benn effet secondaire yemul foofu di faj bépp jàngoro bu nekk sa biir yaram boo ci bëggee gaawal gaaw contacter Serigne Fallou Mbacke borom mos xam boo ko mosee di nga xam njariñam